¡Gracias!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 mbokk yi euh, euh, taamu seen télévision Lamp Fall saa su ne di fi euh, teewlu seen jotaay bi ñu jagleen maam Cheikh Ibrahima Fall di Jazbul Murid ñu ngi leen di nuyu di leen ziar bu baax a baax waaye di tàmbalee di ziar ak a ñaanal Cheikh Mouhamadul Muntaka moom Cheikh Mouhamadul Bachir mi toog jotaay Serigne Touba Khadim Rasoul di ñaan suñu borom yàggal ko fi loolu tam ànd ak noonu la ñuy ziaree ak a ñaanal Serigne Amdi Fall moom Serigne Modou Mbend Fall mi toog jotaay maam Cheikh Ibrahima Fall suñu borom yàggal ko fi loolu tam ànd di beral eh, ziar ak ñaan Serigne Cheikh Ngounda Fall di suñu yaakaar tey lekk di ñaan suñu borom li mu am yéene liggéeyal ko maamam ju tedd ja maam Cheikh Ibrahima Fall mu defee ko nu kawe te ànd ak mbokki taalibe yi mbokk yi di bëgg lool kon di dellu siwaat kon si jotaay bii ñu jagleel maam Cheikh Ibrahima Fall waaye jaare ko ci eh, buntam di eh, soxna maam Seyna bu Njaay suñ ko waxee nag xel dem si xam ngeen ni suñu tollee si waxtu wi noo ngi waajal màggaluk maam bu njaay wala sax màggaluk soxna jaaratullahi bu Bousso waaye nag di waajal eh, bis bi nga xamante ni eh, maam bu Ndiaye mooy sant eh, santale soxna jaaratullahi Mariama Bousso boroomam xam ngeen ne nag kon màggaluk soxna jaara soxna jaaratullahi Mariama Bousso ñu ngi ko jàpp ni ki ñaari fan si feewu février bi ñu ma si atub 2023 waaye it bu ñu si noppee soxna maam Seynabou bu ni ñu koy defee boobu ak léegi mu tollook ñaar fukki at ak juróom-benn wala juróom-ñaar si xam ngeen euh, njabootuk Serigne Moodu Abdoulahi Fall Ndar di ziar bu baax a baax Serigne Mamax Taala Fall moom Serigne Abdoulahi Fall Ndar mi nga xamante ni moo xalifa Serigne Abdoulahi Fall Ndar sunu borom yàggal ko fi loolu te maa def wér waaye di ziar bu baax a baax Serigne Cheikh Bintu Fall mi yàlla dogal mu toog si euh, kanamu njabootuk Serigne Moodu Abdoulahi Fall Ndar ñaanal ko sunu borom yàggal ko fi loolu te maa def wér. xam ngeen ni am tawféexu di àggale liggéeyu waajuram wu tedd woowee jëm si nag àggale bis boobee di bisuk eh, cant eh, gi nga xamante ni soxna maam Seynabou Ndiaye mu ngi koy santale soxna jaaratullahi mariama bu sa boroomam doon lu yéeme incha allah waaye xam ngeen ni ci kaw loolu eh, soxna ramatu soxna ramatullahi Fall mu baax mii moom Serigne Modou Abdoulahi Fall Ndar moom it am taw fee xam si waajuram ni ko nag bis boobee di bis bi nga xamante ni amuñu lu dul moom soxna maam bu njaay ñu ko koy waajalal ngir soxna Jaaratullaahi bu Bousso kon yow dee ko waajalee fii si Ndakaaru ngir gàttalu gàttandu murit yi gàttandu Baay Faal yi xam ngeen ni boobaak léegi mu koy def mu amul giir diko ci ziar bu baakha baax momit mu ngi koy waajal bu wër kon niki fukki fan ci wéru décembre bi ñu nek di le 10 décembre inshallah ci masalikul jinan wi nga xamanteni fa la ko doré booba ak légui lépp rafet mo and ak nak mbolem uh, kurelu uh, soxna yi bay fall yi bay fallu soxna maam Seynabou ndjay yu baax yi waye and ak kurelu nguur yalla yi nga xamanteni ñom uh, ñoom fu ñuy liggéeyalee Cheikhul Khadim difa liggéeyalé Cheikh yi kenn du leen fa jitu kon inshallah ci lañu la tabbi si waxtaan woowu mën see soññee bu baax ànd ak nag eh, sunu imam maam Cheikh Niang ñu ngi koy ziar bu baax doon borom xam-xam wax dëgg yàlla fas yéene waxtaanee kon mbaaxum maam Cheikh Ibrahima Fall waaye waxtaanee soxna soosee nga xamante ni eh, maanaam eh, soxna su ne du ma ne soxna waaye képp kuy doomu aadama war ngaa roy si ñoom seen i jikko yu rafet macha allah. waaye ci ci plateau bi fas yéene si ànd ak kon euh, Serigne euh, Modou Diop bu baax mii nga xamante ni léppam dar fàll la di ko ziar bu baax a baax moom it euh, fu soxna si gestoo rek gis leen si wetam di ko ziar bu wër a wër waaye Serigne Mbaye Diop Baye Fall moom moom di da di murit di Baye di ko ziar bu baax a baax wax dëgg yàlla moom fu ñuy liggéeyalee Serigne Touba ak Cheikh Ibra rek boo gestoo gis ko fa kon ñoom la ñu fas yéene ànd ak si plateau bi ak mboolem daayira yi nga xamante ni dinañ si dikk léegi nii. Euh, gannaaw bi ñu joxee sunu gan yu baax yi imam maam Cheikh Niang mu nuyoog mbokki taalibe yi incha allah ñu mën a dugg nag ci waxtaan wi. alhamdulilahi wali tawfiihi adaayi ila tibaayi aqwaamu tariqi wa sirri fi nahji xayri rafiqi wasalaatu wasalaamu ala man kammalahu laahu insaanan wa jaala baastuhu وشرعته برهانا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله مستكملين شرفه وصحبه سب الخير أهل تصرفه للخير ورضي الله عن شيخنا وسلتنا إلى ربنا محمد بن محمد ابن حبيب الله خادم الرسول وأول مريده في خدمته الشيخ إبراهيم فال رضي الله تعالى عنهما ومن تبعهم بإحسان الله يوم الدين mbokk yi di ñu fii ci télévision bi di lamfal assalamu alaykum wa rahmatullah alaykum assalam tabarakallah Seydina Ali li ngi lay nuyu di la ndokel bu baax mm-hmm. di ñaan Cheikh mohammedul Muntaha hafizahullahu waraa yal na borom bi sam ko te yagal ko lepp li nga xamne nanal nako Cheikh Ahmadou Bamba khadim Rasuul ñu ngi ñaan sunu borom dellu ko ci ay tawfiq nonu lañ koy ñaanale tabarakallahu seigne Amdi modou Menda mm-hmm. ñaan sunu borom mu gën ko fi yagal mm-hmm. ligéy Cheikh Ibrahima di ndokkeel Baye Fall yi tabaarakallaahu keem na nga xam ne sëriñ bi moom la bëgg jàngale ko ci Matlaboul Fawzayni dëkk bi mu war a doon dëkk bi ñu war a sàmm bu nekk référence liggéey boobu nga xam ne jëfee nañ ko keem na ko seen bi bëggee yàlla na saa borom gën a yaatal amiin barkeb alxuraan mel ni ñuy nuyu fa tabaarakallaahu mbokki taalibe yi nga xam ne ñoom la ñu bokkal jotaay bi sëriñ Modou tabaarakallaahu ak ni nga ko waxee sëñ sëñ Mbay Jaw ñu ngi leen di ziyaar di tabaarakallaahu di nuyu Baye Fall yi bu baax a baax waaye di beral cant soxna Rama mi nga xam ne moom sëñ Maodo Abdoulaye Fall Ndar mi nga xam ne sunu borom ci moom la jaarale jotaay bi incha allah di nuyu sunu wayjur boobu mi mu feggool muy soxna Faama Lo nga xam ne ñoom seen lépp Seex Ibra la di nuyu mboolem soxna yi soxna Ndey Ndaw ak tabaarakallaahu soxna Ndaag ak ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu di leen ziar xam naa ñu ngi gàttal foofu rek incha allah jërëjëf Seydina Aliou jërëjëf sëñ maam Cheikh ñu ngi lay ziar baax a baax ñaa ngi incha allah ñu ngi dikk léegi si yow. gannaaw bi ñu joxee kon kaddu gi sëñ Mbaye Diaw Baye Fall. di la ziar bu baax a baax yow moom si jotaay bi sa jotaay. waaw asalaamaaleykum wa rahmatullah alhamdulilah wasalaam abada ala allazi bihi lana alhuda abada sayidina muhammadin wal ali sabi zawina aliwali jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba est-ce que Serigne Touba yaram maam Cheikh Ibrahima Fall mu mag ba asalaamaaleykum ñi ñu bokkal plateau bi di nuyu ñi jàqaloo ñun fépp nekk rek jàqaloo ñun ñu ngi lay ñuy lay jox sab ziar. ziar imam di ziar sëñ Modou Diop sëñ Aliou Badara di ziar baax sëñ Mountakha Basir nga xam ne mooy kilifa yi ñu koy ñaanal fan gudd ànd ak wér ba lim yéene liggéey sëñ Tuubaa yàlla kàttanal ko fa di ko ñaanal baax sëñ am ni Modou Menda ko ñaanal moom it yàlla kattanal ko fi bàyyi ko fekk taalibe bi yëpp li mu yéene liggéeyal maam Cheikh Ibrahima Fall yàlla kattanal ko ba ànd ko ñëpp di ziyaare baax suñu sëriñ suñu yaay suñu lépp soxna Rama Fall mi nga xam ne suñu jataay bi tey ci yàlla ci moom la ko jaarale kër gi nag suñu kër waaye soxna Rama nag moo moo ñu fi indi ndax tey muy waajal lu rëy nag sëñ Aliou na xam naa dinañ ci ñëw ndeysaan di ko ñaanal moom mu yàgg fi lool te ànd ak wér wax jàmbaane Cheikh Ibrahima Fall la jàmbaane sëñ Mourou Ablaye Fall la wax dëgg yàlla jambar la lool ñu ngi koy ñaanal faal mu yagg bi lool tànn góor ak ñi mu àndal liggéey bi yépp kon dañuy wacc foofu suñu kaddu yi ba ci kanam inshallah inshallah señ mbay jow bay Diop euh señ Modou ñu ngi lay cheikh bu baaxa baax jop dina dalal dalalaat jàmm si làmp. jërëjëf alim bana ñu ngi lay ciar bu baaxa baax. di ziare mbokki taalibe yi ñu bokkal plateau bi yëpp rek waye dañuy jiital ci ziar bi ak nuyoo bi Cheikh Mouhamadou muntaha Mbacké Bachir diko ñaanal suñu borom meeku ko gudd fan ak wër nonu ñi nuyoo tamit di ziare serigne Amdi Fall Modou Mbenda ko ñaanal gudd fan ak wér ba liggey yi nga xamanteni mom lañ sumb am yene liggéeyal ko seen mam yu tedd ya suñu borom dafa leen tawfiq ba ñu def ko lu kawé seen jortu and ko mbokk taal bi yépp di siaret euh serigne Mortala Fall nga xamanteni moy khalifa serigne sëriñ Abdoulaye Fall Ndar di siaret suñu buntu ci kër mam Cheikh Fall di serigne Cheikh bintou Fall ñu ko ñaanal mom it gudd fan ak wér ak mbolam rakam nga xamanteni mom la andal liggey bi nga xamanteni mom la ko serigne Modou Abdoulaye Fall Ndar baye mu ko ci ñaanal mu am ci lu kawe njortam and ko ki rakam ak mbokki talib yépp rek di siyaare mbokki talib yépp tay siyaare soxna si nga xamanteni mom lañu sëriñ bi booleel ngir mu am liggéey bu am solo bo xam ne fii lañ koy taxaw ci Dakar muy soxna Rama soxna soxna Rama fal di ko ñaanal momit ku gudd fan ak wër ndax day jambar lool di jambar mam Seyna mam Seyna bu Ndiaye di sakku ñepp ñaanal ko ndax wax ak bëgg-bëggam moy yëkëti liggéey bi yóbbu ko fu kawé kawé ba fi daayira fi daara fi liggéeyu maam jaara bi àgg maam seen njaay gi àgg foofu kon ñu ngi siyaare mbokki taalibe yëpp di siyaare délégation bi nga xamante ni moom la soxna si àndal di góor yàlla yi ak soxna yi xam naa dinañ dikk après ci góor yàlla yi bu ko a yaatal ñi nga xamante ni ñoo nekk ci biir plateau bi kon ñu ngi yamale foofu suñu kàddu xam naa ba dem siwaat si ñun rek di siyaare mbokki taalibe yi nga xamante ni ñoo lañ seqal plateau bi muy sëriñ maam Cheikh ñang di ko siyaare bu baax a baax baax di siyaare sëriñ Mbay Jaw ñoom ñoo ne ñoo seq plateau bi ñu ngi leen di siyaare baax di leen ñaanal di siyaar sëriñ Alioune Badara ñu mm-hmm. siyaare tamit waa Lamp Fall baax jërëjëf euh, sëriñ Modou Diop mbokk yi xam ngeen ni euh, jotaay bi sëriñ Mamour ndaw Baye Fall xam nga am na ñu naan waa ana baay faal bi fu mu féete <laughs> waaye xam ngeen di Baye Fall bi mu ngi waajal mu ngi waajal bu wër ndax xam ngeen ni bis bi Baye Cheikh ndaw Baye Cheikh ndaw yàlla suñu borom dolli ngërëm mm-hmm. moom la ko soxna Rama Fall mii dara jaaleel mm-hmm. xam ngeen ni kooku moom euh, bésu sëñ maamu ndaw la nee na ma nag naa ko wool mboole mbokki taalibe yi fu ñu mën di nekk xam ni kon waa kër Baye Cheikh Ndaw ñooy ñoo xewle euh, kon képp kuy soppee Baye Cheikh Ndaw te Baye Cheikh Ndaw moom euh, soppee dama naan moo ko fi ëpp <laughs> kon nag sëñ maamu dañ koy waaj di ko ziar bu baax a baax nag tey moom dañ ko teewalaat si plateau bi ndax te di ko ñaanal nag suñu borom di ko ndokkeel te di ko ñaanal garam gu tedd googu ñaan suñu borom barkeel ko barke maam Cheikh Ibrahima Fall am ngeen ni eh, nekk si ay yitte rek moom moo ko téye waaye nag eh, samedi moom incha allah eh, ku dem Masaalikul Jinaan da nga ko fekk moom mboolem njabootu baay Cheikh Ndaw yi di siisee bu baax a baax Serigne ah, baay am di Ndaw di ñaan suñu borom yàggal ko fi loolu tamit ànd ak moom mi nga xamante ni mooy xalifa pour Baye Cheikh Ndaw kon nag soxna aadama mbokk yi ñu ngi koy gis sax nii si écran bi ñàkkul ni ñaari kàddu si kurla gàtt rek bu ko defee nag ñu ñëw si euh, imaam mm-hmm. maam Cheikh ñang mm-hmm. fas yéene nag euh, waxtaane mm-hmm. euh, waxtaane akuk cant ndax foofu sax laa bëggoon ñu njëkkee bu booba leeral lan njëriñal cant dëgg rawatina nag liñ ni soxna maam Seynabou Ndiaye nga xamante ni maam Cheikh Ibrahima Fall moom léppam dafa dugg si biir Cheikhul Khadim mhm. soxna maam Seydou Ndiaye léppam dafa dugg si soxna jaaratullahi Mariama Bousso mhm. kon mooy santale boroomam mhm. soxna jaaratullahi Mariama Bousso njëriñal cant dinañ si dëkk gannaaw bi ñu joxee kàddu gi soxna euh, Adama Baye Fall ñu ngi koy ziar bu baax a baax wax dëgg yàlla di ziar ni ko waxee sunu yaay faamaloo ak mboolem Baye Fall yaay Fall yi nga xamante ne ñoo toog ànd ak soxna si dinañ si dikkaat ñoom ñëpp rek ñoom soxna Ndey Ndaw ñëpp rek incha allah dinañ si dikkaat léegi nii soxna si kon ñaari kàddu rek bu ko defee ñu mën a. jërëjëf sëriñ Touba jaaraama maam Mariama jaariyatullaahi jaraw lakk maam Cheikh Rafal sunu buntu suñ Cheikh Fall borom ndigal jaajëfati. jerejeuf mami maami Cheikh bàyyi ni Fall yaay gën goor mami Cheikh mo do lay Fall na yaay gën goor sóoru mam say jerejeuf jerejeuf soxna Ada ñu ngi lay siyaar bu baax baax deug yalla yàlla Fall mu ngo kon euh, euh, seigne mam Cheikh. di la santat bu baax baax. moy mm-hmm. li mo wax sank rek. Mm-hmm. euh soxna mam seyna bu Ndiaye. Mm-hmm di santale soxna jaaratulaay mariama bu sa boroomam boobaak léegi di ab diir njariñal cant ci lislaam jërëjëf Seydina Alioune tabarakallahu cant moom daanaka mënu indi ci kaw suuf bu fekkantene jangat nañ te yëf ndax ma aadama bi ñew ci suuf tabarakallahu Yalla, limu soxla ci mom mom lépp mooy cant ndax alquran moom baax da auzu billahi mina sheytaan rajim dafa ne wallaahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna an wa ja'ala lakum sam'a wa labsa wa laf'idata la'allakum tashkurun la ci yàlla teg dafa ne man yàlla maa leen indee yéen ñëpp ci seen waajur yu jigéen te jamono boobu xamu leen woon dara mooy laa ta'lamuna shay'an mu ne ngeen dem ba ci yàgg ngeen di dégg di gis ti yëg te ngeen ma sant man yàlla bësug tudd loolu bësug cant la waaw cant bi mbooloo may ñëw di ko def mm-hmm. ndax waajur ya koy taxawee di ko def dañ cee lott moo tax ñu woo mbooloo mi mm-hmm. xale boobu tamit ñu koy defal moom da cee lottu ndax boobu xamagul dara dañ koy tàmbaleeku cant mm-hmm. kon nit nekk li ko indi ci kaw suuf yëpp cant la cant nag kii xam li ko yàlla defal rek moo ci mën a tàbbi moo tax soxna si nga xam ne dañ koo tudd léegi tabaarakallaahu moom ci loolee la nekkoon waaye cant nag dañ koy yee ci nit ngir mu mun koo def ndax Seydina Alin ba mu xam-xam yi dañ lay jàngal ne ñeenti xadara rek am cantaa kon ba nag ma nga ca dernier cant ga moo tax ak Baay bu foo ko fekk daa war ko fekk daa war a bég ci dundam yépp ndax moom mi ngi ci maqaamatu rida mooy dernier maqaama ñeenti maqaama la ñeenti xadaraat la xam koo xam ne mi ngi ci xadaratul nafs kooku moom jamono bi lekk beeg naan bi ak mbétte gi nekk bu génnee xol bi mën naa yënguwaat kon foofee rek la ne mi ngi ci bakken bi rek <laughs> mooy fi bakken bi di yëngoo moo am ci biir daanaka yépp jotaay yi ngay gis yudul yàlla mm-hmm. boo fa génnee rek mu neexit ba jeex dégg nga ko boobu mooy xadara bi njëkk day am tamit ci koo xam ne daanaka yëbbalu na waaye xamul nu muy doxee ndax bu demee ci daayira bu fa fekkee ñaari nit day dëpp <laughs> dégg nga pas-pas bi du dëgg parce que lépp ci bakkan bi la ne bu demee ci cant wala mu dem ci mbooloo moo xam ne dañ war a liggéeyal sëriñ bi nay xumb moom maanaam bakkan bi na koy yëg rek wala mu daw mm-hmm. deuxième xadara bi nag mooy xadaratul aql kooku tam solowul ta kale mooy xel mi mooy liggéey lépp luñ ko jox day dénk-dénk mm-hmm. dégg nga ko moo tax foog nit balaa muy jébbalu ñu jàngal ko keem nan la mën a def ba doon cantaakoon moom ndax ak murit day nekk ak cantaakoon waxtu bu ne mooy lépp looy gis ak nu mu mënti demee nga xam ne dogale yi suñu borom la ni yàlla def Seex ba Faal nga xam ne dogale yi suñu borom la ndax yàlla du dis du discuter kenn ci lenn léegi nag ki nga xam ne li muy gis waxtu bu ne di ko teg bët wala tegu ko bët wala lu mu xam ak lu mu xamul day xam ne dogalu suñu borom la mu bàyyi ko noonu mooy tax mu sant kooku nag mu ngi ci deuxième xadaraat bi bu ko nanguwul mooy aql bi xel mi doo koy sonal te diine jii ñu nekk lépp looy gis daanaka xel du ko takk ndax boo xoolee nit ki kàbbar di julli boo ko seytoo dégg nga ko ci zaayaram moom ak ki nga xam ne day dem entraînement wutewuñu mais la nëbbatu ci baatin ba mooy xayrul yàlla rek ko xam nodd bii ngay gis ñu koy def ci gént la jóge ndax yent bi da doon wax mbooloo mi kenn ku ne dégg nga ko na xool ak woote goo xam ne nan lay mën a tabbee ci biir li ñuy wootee ba ñu wax mu ne leen bii juif yee koy def ba ñu wax mu ne leen bii nasaraan yee koy def am saaba bu ñëw ne ko démb de damaa gént am ku taxaw sama kanam di wax xeetu baat yi baat yi mhm. mu ne ko kon sa nodd boobu sa sa inna kaa la waxyatul xaq mhm. da nga yëg ne sa gént kooku dëgg la kon nañ koy defee noonu kon du lu ñuy takk mhm. kooku nag ki xel mi gi nga xam ne waxtu bu ne lu ñëw bu ñu joxee ndigal sax xel mi dana ne est-ce que sëriñ bee ko wax moo tax wa tarkul ixraadi muxtalihan walaw bi baatinin fii ma qad warat ab murit bu sëñ Badara mi nga xam ne sëriñ bi moom la jox ndigal ne ko waxal mbokki taalibe sàngam bu sëñ Badara ñëwee ne sëñ bi ñëw na nee na sàngam murit yi ko déglu kenn waru ci déng-déngal mooy da ngay jël génnaat ci xadaratu la ndax wa xusnu zan bi zan nii bilaa inkaar da ngay rafet njortu te doo am daanaka loo ci sikki sàkk ah. dégg nga ko moo tax ngay am a siddiqu fi mahabati cheikh su ma ti am ci saa am si xëy suwaar ndax al muridu laa yemliku cheyan dégg nga ko maanaam muy dara du ko moom mhm. wala yemliku cheyan mhm. moom itam du moom dara li koy wax nag mooy dara du ko tënk moom xel mi du ko dirigé waaw waaw xel mi du ko dirigé <laughs> Baye Fall mhm. moom ak militaire ak malaaka ñoo ñoo xaw a ndéwoo ñoo xaw a militaire bi waxtu bu nekk dañ koy solal di ko dundal dañ koy woddee dañ ko koy jox dañ koy dundal dañ koy jox ordre ku ma waay da ngay perte te bu duggee saxaar du fay. maa la wax lii de wér na de. <laughs> malaaka bu ko yàlla ne alagal dëkk. Mhm. da koy alag. Mhm. dégg nga te du yàlla du ko ci fekk. bu ne ko defal sàngal ndax ndax laa laa yox su na laa maa amawoon wa yaf aluna maa yumaroon moo tax. dégg ko du mooy ndigal li liñ leen di digal rek moom la ñuy def léegi nag day génn ci deuxième dimension bi ñaar ngoog. beneen bi mooy troisième xol bi kooku pas-pas bee ngi mi ngi commencé nekk ku baax waaye ba léegi dajagul fële maqaam ak suufu mi ngi commencé doon ku baax léegi li xol bi di nangu rek da koy jëf li xol bi bañ mu dàqu mu ngi si ñetteelu xadaar beneen bi nag mooy maqaamaatu ida mooy ki nga xam ne dafa am ngërëm kooku foo ko fekk sukkur la moo tax yàlla daf ne ci alxuraan am yaqsuduna an naas ala ma ataahumullah min fadlihi faqad aatayna ala ibrahima kitaaba wal hikma wa aateenaa mulkan azima mu ne eh maa ngi leen di yëgal wala boog ndax da di soxore ngëneel yi nga xam ne maa ko tabbil ci doomi aadama yi xool leen yonent yàlla Ibrahima defaluma dara maa ko jox moom njabootam yépp nguur ak yonent ndax daa Ibrahima daa nekk yonent yàlla may ko ñaari doom muy Ismaïl Isaax yàlla def leen yonent Isaaxa jur Yankooba mu nekk yonent Yankooba jur Yuusufa mu nekk yonent dégg nga mu ne defaluñu ñuma dara xol leen ngëneel yi ma leen defal ci nubuwa ak ak i àtteeg nguur dégg nga ko te defaluñu ñuma dara motax maqamatu shukr ku am ku nekk ci maqamatu rida rek ko mën motax dogal yi fa nga koy nangu ndey seen bu njaay momu nak da di rew mi mm-hmm. dañ dul jàngale te yent bi dafa ne taallamu min ansabikum ma tasiluna bihi arhamukum mm-hmm. gis nga jafé jafé yi ñu dal yépp moy kenn ñu suñuy mag dégg nit bu bëggee xam boppam boo gisee ñu naan bàyyi nit xew bu amee ci pénc ñuy woo kenn muy fàttali kiy def mbir mi won ko ay maamam fan lañ taxawoon ci mbaax dañoo bëgg mu xam mooy kan te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla dafa ne ko gars yi balaa ñoo moom bëgg xam nañu xam seen bopp xam sa bopp waaw xam sa bopp man arafa nafsuhu arafa rabbuhu ku xam boppam rek dana xam yàlla maanaam nit day dellu si boppam nit bu dellu si fi boppam xam mooy kan rek ak ca nekk cantaakoon da ko yomb nday seeni bu njaay moomu nag moomu miñ ne day sant soxna jaara mbaax na mu yàggee ca musoo bi yàgg ca mbàkke noonu la yàggee ca njara ndax moom léppam génnul njara sëriñ njaay fatim njara mooy waajuram mhm. soxna la fatim njaay mooy waajuram bu jigéen waaye moom mi ngi ganee jamono Njara Njaay Njara Njaay ak Njara Wàqi du benn Njara Wàqi mooy Njara gu mag ga ca maam Demba Njaay Wàqi mi ngi ganee jamono nag 1830 am na ñuy wax 1837 am na ñuy wax 1838 mais boo demee si archive dañu lay wax 1830 la ganee jamono te li nit ñi xamul mooy daara Seex Ibra yi mu sañc yépp fii la ko fekk ndax fii la ne ba 1920 bi mu demee fukki at rek lañ ci teg Seex Ibra Faal dem kon lépp fii la ko fekk li yéeme ci moom mooy say say naalin baayam dafa yoroon daara ah. daaray alquran mm-hmm. mu wotoo fa alquran daan nekk ci biir daara ci dégg nga ko ñii dañ koy wooye sañ Balla Faare Gueye ñii dañ koy wooye sañ sañ sëñ faatim Fatim Ndiaye dégg nga ko moom moomu bi mu nekkee ci biir daara ci dafa wotoo alxuraan jël yenn dongo yi di leen jàngal même buy liggéey liggéeyu kër foo ko fekk jukki alxuraan bee ci wetam da koy jàng di liggéeyaale moo tax benn waykat dafa wax ne na mu daan jànge alxuraan noonu la ko ak njabootam ñëwee di ko jëf maanaam jàng gën doon jàng alxuraan Seex ah. Ibra Faal dafa ñëw di ko jëf moom maanaam liggéeyu kër yi jigéen di def mm-hmm. xam nga jigéen dafay tàmm buy liggéey di woyantu mm-hmm. moom buy liggéey jukki alxuraan yi ñoo doon wettalam donga yi nekkoon ci daara ji ku daanul mokkal danaan jëndoog yow ndax daara ñun ñi ci ne sax dongo bu mokkalul boo koy pini yow da dem bàyyi ko bind bi waaye da daan wéttali dongo yi ba wàcc jot. Cheikh Ibra Fall mhm. ak Serigne Saliou Fall moo leen jàngalal boppam mhm. loolu nag ñu bàyyi xamuñu ko moo leen jàngalal boppam ba ñu woto alxuraan mhm. kon mbaax yàgg na fa yàgg na fa. taalu jàng yi waaw taalu jàng yi fa bokkoon ca Njara dafa yàggoon. te fépp foo dem réew mi yëpp laa la wax ba ci Casamance boo demee gis fa njala njala waaw jom akum ñàng akum njàmbaare daa yàgg ci ñoom ba tey jii ba tey jii fépp foo dem nag ñanga fa kon soxna la soo xam ne bu amee li mel nii mënees naa ne ah, mbir moo gis nag jàkka joo dem wala mbooloo moo dem wala dëkk boo dem day am ku jiitu mu topp ndax lépp lu amul hiérarchie mhm. du dem fenn boo déggee ñu ne administration rek hiérarchie tax te yàlla mi ne wa isa qada amran fa innama yaqul lahu kun fa yakun nga xam ne dafa ne su ma bëggee dogal dara dama naan nekkal mu nekk moom moomu dafa teg hiérarchie malaaka yi li ñuy bari bari dafa am ku jiit ci kanam ñi sa des topp ndax wa tanazalul malaikatu wa ruuhu fiha gis nga bu ne leetul xaddi malaaka yi dañuy wàcc dañ naan ànd ak jibril te jibril tàbbi na ci biir malaaka moo tax mbir foog mu am kuy jiite sëñ tubaa la yàlla jox mbir waaye Seex Ibra moo ñëwoon pour leeral mbir mu ñu jaar ci ay soxna yoo xam ne nag dañ leen waajal comme soxnaas démb ya ndax lislaam soxna yi daanaka soxnaa ci njëkk a tàbbi moo ci njëkk njëkk jëf alalam moo ci njëkk a faatu xadija ci njëkk ci njëkk a faatu xadija ci njëkk a jëf alalam kon lislaam yàgg na jigéen di ci góorgóorlu moo tax yàlla bu ne innal muslimina day wax wal muslimaati daf ci am foo xam ne soxnaas góor yàlla mm-hmm. dañu fay yamet maqaama mooy ci jëf ba man amila saalihan min zakarin aw unsa wa huwa muminun fala nuhyiyannahu hayaatan tayyiba wala nasiyannahum ajrahum bi ahsani ma kaanu yaamaluun dafa ne képp koo xam ne da ngay jëf lu baax moo xam jigéen nga wala góor nee na yàlla nee na maa ngi lay fekk ne ba ñu koy jëf da ànd ak ngëm nee na maa ngi leen di yëgal ne ñooñu ñëpp danaa leen defal dund bu tey boo lëggee nag ñoom ñëpp laay boole ndoo pay ci jëf ju baax gañ doo jëf kon nag cant day maqaamu boo xam ne bu kawee la huwa allazi ansaakum wa jaala lakum sam'a wal absaara wal af'idata waaye qalilan ma tashkuruun sa suratul mulk yàlla dafa ne maa leen sos ngeen dem ba ci yàgg ngeen di dégg di gis di yëg waaye lu néew moo may sant ndax ak cant lu jafe la ndax nit bu nangul ndogal yàlla rek du nekk cantaakoon lépp loo gis ni yàlla def say naal na rek da koy nangu ni yàlla def keneen nga nangu ko te yàlla deesu ko tënk déedéet yàlla kenn du tënk ci bërëb Cheikh Ibrahima dafa nekk koo xam ne mooy daanaka li alxuraan ne wa jaa rajulun min ahsal madinati dégg nga ko rajulun yasa qaala yaa qawmi tabil mursalu waaw dégg nga ko dafa nekk comme genn koo xam ne daanaka daa ñëw di wane ne leen e kaay leen waajange ittabi'u man laa yas'alukum ajran wa hum muhtadun kaay leen topp ki ngeen xam ne du leen laaj benn pay te dana leen jubal yéen ñëpp moom kooku la waaye nag taxaw ci dimension boo xam ne allazina amanu wa xaajoru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim azamu darajatan inda allah wa ulaika humul faizun la ne moom daa gëm ba pare gén nga ko génn kajoor ba mu nekkoon gàjjaa euh, gàddaay ñëw bawal gis nga wax xaajoru mu ne nag wa jahadu fi sabilillah waaye jihaad ci yoonu yàlla nag ndax Sëñ Tuubaa dafa ne ko ci ñett kase ngay taxaw al imtisaal wal ijtimaab wa taqallaaha nga ko mu ne ko ak da ngay jublu yàlla fii xidmatihi tabaaraka wa taala dégg nga ko waaye nag sa jublu bi ngay jublu yàlla da may liggéeyal man ndax ci la ngërëm li ci man lay jaare pour mu tàbbi ci waaw comme ni ma yenent bi ndax ndigal li Sëriñ Tuubaa ko yor ndax bépp ndigal day jaar ci Seydina Muhammad doo koy wàcc ci keneen te yeneen bi moo jox Sëriñ Tuubaa ndigal te yàlla moom la waxoon inna arsalnaaka shaahidan wa mubashiran wa naziran wa daa'iyan ilallah nag waaye bi iznihi wa siraajan munira moo tax fu nit di jokk na fexe ndigal am fa ba pare ndax ndigal moo indi ngërëm te nit bu amee ngërëm foo ko fekk day day day day cant jokk mënta ñàkk ngërëm nag dañ koy jaawale ak barke ak barke du benn de du benn mhm. saa saa nga gis nit ñu naan ko mu bàyyi fii ay waajuram di toppi sëriñ waajur barke si nekk ci moom wala moom foog ngërëm tàbbi ci moom nga wuti ko ci moom maanaam nit fekk bàyyam mu am ngërëm mu ñëw bokk ci biir taalibe yi di wuti ngërëm mais kii nga xam ne bàyyam daanaka doxul ci ngërëm mhm. kooku barke fay ne barke ba moom bu ko wutiwul keneen wuti ko ngërëm nag ci ku yàlla gërëm mooy nekk ci moom wala ku ku yàlla gërëm mu gërëm ko waaw voilà du benn waaw dafa xaw a wuute dégg nga ko waabudullah wala tushrik bihi shay'an waa bi walidayni ihsanan la mm-hmm. yàlla daf na rafetal leen diggante ak waajur yi waajur bu amee ngërëm nag des nay wuti ngërëm ci moom mais bu fa ngërëm nekkul bàkk ngay wuti ngërëm nga dem xool fa mu nekk ndax ngërëmal yàlla ci ku mu tabbi te ngërëmal yàlla day am silsila ba ja dem ci yenent bi sallallahu alayhi wa sallam looloo taxoon nag Seex Ibra Faal Sëñ waxoon ko loolu ne ko fii dañ lay digal di la tere pare nag ngay liggéey jëm ci yoon yàlla te doo fi wut dara ba waaye nag ci man mi nga ko koy jaaree ndax ngërëm la ci man la nekk mu nangu ko mu nangu ko te loolu woy jëm moo ko fàggul soxna Seynabou Ndiaye. soxna Seynabou Ndiaye moo ko fàggul. Mhm. ndax Seex Ibra ay mbiram dañu fa ndiroog mbiru ah. mhm. ci lislaam dafa mhm. yu bari yoo xam ne Seydina Omar moo ko leeral ndax Seydina Omar balaa muy tàbbi ci lislaam gars yi bu ñu daan julli dañ daan làqatu jour bi mu ne cëpp ba ñu nodd daf ne leen ci biti laa julli la ñuy jullee ñun ñëpp noonu la amee moom dafa ñëwoon pour ñiital nit ñi sëñ Tuubaa wala leen ne waa ji bu leen ko booleek ñii ndax bokkuñu ndax seexu taxlim ak seexu tarbiya ak seexu tarxiya dafa wuti sëñ bi leeral na yëpp taxlim mooy ki nga xam ne jàng na ba mën a xaala xii la xàmmee taxul nag mu mu doon koo xam ne daanaka ca waay yàlla yi lay bokk moo tax ba mu téye bu ndaw boobu nga xam ne téye bu mag la ba mu lax dari dafa ne wala yaxilu lahu an yafala fihlan xataa yaalama xuqumallaa fii wa yasalul ulama waaye wa yaxtabi bil muttabiina li sunnati rasulillah mu ne daganul ci benn nit muy jëf benn jëf fii ak xamul xattib yàlla ci lool waaye booy laaj laajal borom xam-xam yi waaye booy roy royal ñi nga xam ne ñoo teg seen tànk fi yent bi tegoon tànkam moo tax borom xam-xam ak nitu yàlla du benn ngërëm nag ki ñu ko tàbbil moo koy tàbbil ci moom seexi ba nag ngërëm googu la wuti woon mais du mbirum xaal ak xii la am na ko ca këram ba pare. dëgg la wër na waaw. ndax sànq yaa ngi junj ni moom ak euh, rakkam ju tedd ja. Mhm. maam Saliou Fall mhm. seen waajur moo leen doon tëralal ca daara ja. Mhm. daara wu tedd woon. te li gën a yéeme si wax ji. tey soxna maam Seynabou Ndiaye jërëjëf soxna Rama. si taxawaay bu am solo bii nga xamante ni am am nga ko boobaak léegi ay at. waaye eh, li nga wax di ko def si ndigalu waaye waajuram Serigne Modou Abdoulaye Fall Ndar. di borom yi ngërëm. am ngërëm yi. képp ku mu jamonoonteel si waa kër Sëñ Tuubaa mm-hmm. waaye am ngërëmal képp ku mu jamonoonteel si waa kër maam Cheikh Mourou Abdoulaye Fall moom mm-hmm. sëñ Abdoulaye Fall ndaw mi ko meññ ndax dama ciy wax tuuti rek nga dellu si waat mu duggaat fee ah, sëñ Modou Abdoulaye moom sëñ Abdoulaye Fall mi ko meññ mm-hmm. dégg nga ko ak sëñ Fallou Fall. moom de maam Cheikh Jaxate mais di doog a egg si xam na ko bu baax. waaw <laughs> <laughs> waaw ak sëñ Abdoulaye Fall ndax. ak ku ñu wax soxna Roqee Fall ñoo bokk ñaari wëju ñet ñaari weju yi leen meñ dégg nga ko ndax seen wëju soxna Fat Fall Wad dëgg la ma leen meñ mhm. Cheikh Ibra bi mu jëlee soxna Khady Diaw soxna Fat Fall Wad la ci teg ñoom ñoo ñu nag ña nga ganee jamono ca Guet Ndar waaw suñ Fallou Fall nag li tax ñu xam ci moom lu bari sunu maam bi nga xam ne moo meññ sunu yaay sunu beneen maam ndax ñoom dañu dëkkoon ci quatre communes yi ñoo àndoon dem 14 18 ca geew ba sëñ Fallou Fall. maam yàlla ko dimbali mu ñibbi si bagage yi sax moo ko indaale. Ah, mm-hmm. moom. Seex mm-hmm. ba 75. ndax a toog. Mm-hmm. ngir sëñ sa jeeram. dégg nga ko ndax taaw taaw Seex Ibra mi ngi tudd Soxna Fat Fall Seex. jigéen la. ndeysaan waaw <laughs> sëñ Fallou Fall topp ci. Mhm. sëñ Modou Moustapha Fall doo ko ñëw. sëñ Modou Moustapha Fall nag. sëñ Modou bi mu génnee 1930. Mhm. moo toog ci xilaafa ba 50. ba 50. 50 nag ba 54 sëñ Mor Talla Fall jël. ndeysaan sëñ Ablaye Fall daal mi ñu doon tudd nag moo jël 54. ba 75 75. naa kaw sax doo ko jël 75. ba 80 ndeysaan 80 84. sëñ moo taala Fall jël mm, sëñ Abdou Sakko jël mm-hmm. dégg nga ko nag sëñ Mourami Fa jàmbaar ja ndeysaan daal di jël 84 ba 2006 mm-hmm. waaw 2006 ba 2021 mm-hmm. sëñ Cheikh jëmm jël suñu jàmbaar bi ah, sëñ Amdi Modou Menda tàmbale yàlla na yàgg lool nii la xilaafa yi demee ndax Cheikh Iba juróomi xilaafa la am ci doom sëñ Tuubaa tamit juróomi xilaafa la am ci doom sët yi doo koy jël ñetti sët sëñ Modou Moustapha Fall moomu ci njàmbaaram 1930 bi moo Modou Moussa ne day tàmbalee jumaa ji ñaari million la doon teg ci loxo ak bu ne ak ñaar téeméeri ñaar yoo xam ne duñ ñibbisi bu yi da koy renouvelé dëgg loolu raay nga doon gis waaw maa ngi soxna sii mm-hmm. sëñ Abdoulaye benn téeméeri dongo yi maa ngi soxna Rawa waaw juróom benn téeméeri dongo yi doon defar raay bi mm-hmm. sëñ sëñ Abdoulaye Fall Ndar moo doon jëwriñ bi loolu nag ñu bàyyi xamuñu ko liggéey bi moo ko jiite woon moo doon jëwriñ bi mm-hmm. si ndigalu magam bu tedd ja waaw ca ndigalu magam bu tedd ba di sëñ Mor Moussa Fall. ndeysaan. carrière gi nag ca jamonoy sëñ Fallou tamit. dégg nga toppe googu dama bëgg ngay jàngataale léeg-léeg <laughs> lu am solo la wax dëgg yàlla. dëgg la xoolal bi di toppante. dafa yàgg. dafa yàgg. Mm-hmm. waaye nag xam nga loolu lu koy indi nangu ndigal. ndigal nag li li koy nanguloo nit mooy mm-hmm. nangu ndogal. nit balaa mooy nangu ndigal day nangu ndogal ba pare. dogal lu am solo la. waaw nangu ndogal. Iblis li ko yóbbee lii sax mooy. nangu ñàkk nangu ndogal moo ko yóbbee lii ak wér. ndax moo tax ab Baay Faal boo koy wëf. ci biir mbindu Sëñ Tuubaa yi da ngay dugg si inni sa altoka. xalban mhm. xaashan waaye mu taw waajal. man kasira naf yàlla. dégg nga loolu waaw Baay ñu ngi foofu. ci béy xam-xam baa même xam-xam ak ñoo ko bari la sax. waaw waaw xam-xam boo xam ne day. xalban xaashan waaw mu taw waajal. ànd ak waaw ndax dañu eh? ragal yàlla ba pare ànd ak toox la mooy koo gis sax jàpp ne moo la gën yow eh. koo gis bëgg koo gën a suufe <laughs> te yant bi nee na sayyidul qawmi xaadimuhum waaw sangub nit ñi mooy kiy wàccee boppam ci biir nit ñi sax di leen dimbali di leen liggéey xam xam nga da wax sànq xam-xam boobu waa ilman kasiran naf i naf ay eh, sama xel dem si démb rek am na benn mbokk taalibe boo xamante ni ñoo bokk ñoo bokk ñoo bokk diine gi ndeysaan mm-hmm. mu ni ma daa toog di xool Baay Faal yi ni doon defaree maanaam ndigalu sëñ Muntaxa gu mujj bi yàlla na fi yàgg loolu tànn mooy ndigalu gaar ba mu ni ma waaye ñii seen xam bi rëy na lool loolu la ma teg ndax daf ko jàngat xam nga soo xoolee kaw gi nii li nit ñi baree mais léeg-léeg wóor ne liggéey boobu ngir liggéey ko si ñaar ñetti fan xam-xam dëgg ak xarañte ak xol bu nangu rek moom moo ko mën daal pour dëggal léegi léegi léegi li nga doon wax xam-xam xam nga bi ci gën a kawe mooy xam yàlla jaay dëgg dëgg day nekk aarifuna billah dégg waaw maanaam day daj yàlla moo tax mbindeef bu mu gis nga taxawee jëmm yonent bi dootul gisati mbon ci yow d'accord dégg nga ko dootul gisati mbon yow waaye imaam yow mii kéemaan nga kat gis nga Seydina Omar <laughs> Seydina mhm. bi mu nekkee xalifa mhm. lii dalil la bu wéef mhm. soxna Faye dellul sëñ Ablaye Fall da dangaa wax kat ma am lu ma ca waaye yaa ngi woon fu am solo sa moom bi mu nekkee xalifa Seydina Omar Seydina Omar noqataan bi mu nekkee xalifa ndeysaan mbir mi dafa wéy ci moom loolu. ba bu guddee bu nit ñi di nelaw day doxantu. muy doxantu ba gis benn waay daanaka tos la daan yor. ci misaal gis benn waay bu toog ci biir kër mu gis waa teg lu mel ni dégg nga ko ndox mu soppeeku moom. di mhm. di di bàkkeeru. Mhm. mu daal koy ñiit ba gis ko daal di cëppeelu ci biir kër gi daal di ko fekk ne ko jàpp naa la. Eh. yow bàkkaar bu wéy bi ngay def <clears throat> ji ne ko. benn bàkkaar laa def waaye yow def nga bàkkaar yu bari. <laughs> mu ne ko eh. mu ne ko def nga bàkkaar yu bari laay wax. un man mi suturaal sama bopp toog sama biir kër. waaw. Ah. dégg nga nga yëg ji ma. Mhm. te yàlla nee na yaa allazina amanu ittanibu kasiran mina zanni. inna ba'da zanni ismun. wala hmm. tajassasu lu am solo. watandiku leen yéen gëm yàlla di njort. Mhm. bëri na ci li ngeen di njot bàkkaar rek leen di yor mm. ba leen di yëj mooy bu leen di espion mu ne ko yaa ngi ma fekk sama biir kër di ma yénd di xool lan laay def <laughs> beneen bi wa atu buyutan min abwaabihaa maanaam yow yaa ngi au bu ngeen di dugg ci kër jaar leen ci buntu bi nga tëb ci miir bi <laughs> te yow yaay amee moom yi mu tiit <laughs> bàyyi dégg nga ko mu ne ko beneen bi daanaka def nga bàkkaar bu mag ndax yàlla nee na laa tadxulu buyutan xayra buyutikum hattaa tastanisu wa tusallimu ala ahlihaa yaa ngi ñëw nuyuwoo ma yaa ngi fëggoo defoo dara da nga ñëw cëppeelu rek ne ma yow li ngay li ngay jëfandikoo te nuyuwoo ma sax te boo nuyoo bu ma la waxul duggal waroo dugg mhm. xam nga fu mu jëm moom te loolu boo ko xoolee da ngay xool ci critère Baye Fall Baye Fall amul kenn ku muy sànni waaw mukk amul kenn ku muy daanaka xalab dëgg la ku ko doon laa wax nag mhm. Baye Fall mm-hmm. waaw ku ko doon waaw eh, Serigne Moussa Ka naan bu ngeen demee tubaab mel ni waa Touba bu ngeen ñëwee Ndakaaru mel ni Kooba waxuñu loolu <laughs> du du du maanaam comportement la waaw comportement la makaarimal axlaaq la dëgg la mais du mbubu bi ngay sol nii rek mm-hmm. ak takkaay mukk mukk déedéet dund la ak jëfin dëgg la boo ko doonee même boo doon soli diin ak t-shirt mm-hmm. boo duggee ci bërëb boo waxee ñaari kàddu gaa xam ko ak wér ndax si sa comportement ci sa waxin si sa jëfin ca ne ndax ñaar yi yëngu ci yow la dëgg la Serigne Fall ñaar la fi fekk dafay fekk jëf ak wax. Mm-hmm. ñaari mu jël ci yi gën. waaw wax ba wax daj. laa ilaha illallah ci gën. mu jël ak wér. yonent bi dafa ne afdalu maa qultu ana wa nabiyina min qabla laa ilaha illallah. li gën li may tudd man Seyduna Muhammad. ak yeneen yi fi jiitu woon yëpp mooy laa ilaha illallah. mooy li soxna Adama doon tudd léegi nii rek. micro bi. <laughs> subhaan wa laa ilaaha illallah muy naaj laa ilaaha illallah muy guddi laa ilaaha illallah muy taw laa ilaaha illallah muy naaj laa ilaaha illallah sunu guddi laa ilaaha illallah sunu bëccëg laa ilaaha illallah. jërëjëf <laughs> gis nga. mu ne jërëjëf waa góor afdalu <laughs> ma qultu ana wa nabiyun min qabl mhm. laa ilaha illa allah jël li gën si wax waaw man ak yeneen yi fi jiitu woon yëpp dañ mhm. gënoon li ñu wax mooy laa ilaha illa allah aka fee yàgg waaw mhm. ndax baat boobu xanaa xamoo ne lépp lu nit di wax dégg nga ko lépp lu nit di wax wan nga koy jëf mën ngaa xëy te taxaw yàlla mu lay àtte moom des laa ilaha illa allah ak <laughs> man kaana axiru la laa ilaaha illallah daxalal janna hmm. maanaam képp koo xam ne sa mujjantalu baat. mooy laa ilaaha illallah mooy laa ilaaha illallah dem nga aljanna. da ngay bokk si wa saabiquuna saabiquuna ulaayka al-muqarrabuun doo jaar ci ay balance. moo tax Sëriñ Tuubaa <laughs> ku ñu ku ñu ku ñu war a topp la. bokk la kenn. Sëriñ Tuubaa ku ñu war a topp wajja al lisaani. waaw wa qalbi zakreka maan. Mhm. inda mamaati maal imaan yàlla. xool fi mu ñu ko dugal. maanaam. mu ne ko yow yàlla defal sunu làmmiñ. dégg nga ko. Ah, ak suñu xool gi <laughs> ñu àndandoo di la tudd. Mhm. bu ñu demee ba loolee ñuy tudd faatu dikkal. dikkal dégg nga maanaam ñu wax laa ilaha illallah. Ah, xool nit ñoo ko ñaanalee. Mhm. moo tax ku mel ni moom amul. moom Serigne Touba. tey moo tax jawatu rabbi bi lisaani arabi bilaa nihaayati wa taaba xurabi. Cheikh Ibra Fall nag da ko xamoon lool. <laughs> est-ce ko ca nañ ko war a toppee. Mhm. moo tax mu ne leen waa ji bokkul ak moom. moo tax moom rek am ay magamaki. ak i rakkam ak i jabaatam ak i ndijaayam ñëpp topp ko te ko allahu akbar ak wér hmm. keneen koo dem hmm. bu woote ay mbokk ma ko njëkk a weddi waaw parce que li ñu koy wax mooy yow mi nga xam ne fii fii nga tàmbalee lépp fii nga defee nii maanaam li tubaab di wax unanimité Sëriñ Tuubaa moo ko am si biir si biir si biir yi bokkam waaye nag ni mu mel la hmm. ak jagle la loolu allahu xusuus ak jagle la moo tax lastu ashukku abadan fii kaw mi jaaral badihi ajaban li qawmi moo tax bokk la kenn ndax sëriñ bi li ko yàlla defal mooy lépp luy àdduna. Mhm. doo ko bàyyi ak nit ñi. Mhm. la la métti yëpp mu gàddu ko moom. cey ak wér. mu ne leen nag jëf bu nit di jëf jëfal sëñ Tuubaa ak wér jëfal sëñ Tuubaa ndax waaw ndax li mu gàddu moo tax. قلوب الجملة الذين أفلحوا توا كان حقا ورب المسلم ورب المسلم أكبر خول مبولم داني مو جبلو من سمن تبا أنا يتحي تلول سنو بام يونا الفمن لا ليا دكو مفرد موي سنجري maanaam ji loolu si yàlla ci man mii la ko yow na amul keneen sa Cheikh Ibrahima jiitu fa waaw jiitu fa ànd ak wane wane wane wane ni ñu ci bañ ñu ci wallaahi sëñ sëñ Aline Badara sax affaire dafa taw féexe <laughs> ndax weer wii nga xam ne muy weeru Cheikh Mouhamadul Amin weer wii la ñu gërëm Cheikh Ibrahima Fall waaw Cheikh Mouhamadul Amin Baara Cheikh Mouhamadul moom Cheikhul Khadim bi mu ganee jamono <laughs> waaw te sëñ Touba woo sëñ Dawa San Ndiaye woo sëñ Dame Abdourahmane woo Cheikh Ibrahima Fall noo ngi waajal màggalug Mbàkke Kajoor waaw Mbàkke Kajoor incha allahu rabbi ñaar fukki fan ñaar si weeru décembre bii ñu dëgmal. yaa ngi imaam <laughs> imaam yow daal kéemaan nga wax dëgg yàlla soxna Rama daal xam naa ne imaam mii daal maam li des si waxtaan wi sax man ni may def mooy li des si waxtaan yi ku ko bëgg a déglu faaw da ngay xaar ba masaalikul jinaan rek. ndax imaam yow damay bañ daal li ñu waajal mbokk yi. maanaam nga xëpp ñu ko lépp fii rek. bu ko defee mbokk yi bis boobu jotee soxna Rama di leen séntu di leen gis kon maanaam le 10 décembre. te masaalikul jinaan bis bi bëccëg lay doon. Mm-hmm. waaye nag doon bis boo xamante ni ñu ko waxee woon sànq dañ ko dara jaale. Mm-hmm. Baye Cheikh Ndaw xam naa sëñ Mamour moom mu ngi fa mu nekk di noos. Mm-hmm. waaye dama bëggoon balaa ñoo ñëw si yow sëñ Baye Diop Baye Fall. ñu ñëw sëñ Moodu mii. mu dëkk ak ñun si bis bi ñi nga xamante ni ñoom la ko soxna Rama àndal. ànd kaak njabootu maam Cheikh Ibrahima Fall gépp waaye ànd kaak njabootuk euh, Serigne Moodu Abdoulahi Fall Ndar gépp waaye ànd ak njabootuk Serigne Abdoulaye Fall Ndar gépp wax dëgg yàlla si njiitaru Serigne Momax Talla Fall moom Serigne Abdoulaye Fall Ndar mi toog toog jotaay ak Serigne Abdoulaye Fall Ndar di ñaan mu yàgg fi lool te ànd ak wér ak mboolem njabootu Serigne Ndar gi ñu ngi leen di siyaar bu baax a baax waaye njabootu Serigne Modou Abdoulaye Fall Ndar si njiitalu Serigne Cheikh Bintou Fall ñu ngi koy ziar bu baax a baax a baax a baax waaye jàmbaaru Serigne Modou Abdoulaye Fall Ndar di eh, Serigne Cheikh Fall Khady Gueye ca Paris ndeysaan bu ñu hmm. waxee sëñ Modou Abdoulaye rek su suñu xel dana dem si moom hmm. muy jàmbaar ndax lool nag ñun man dama naan man mii doy naa si seede mag sëriñ Mamour ndaw hmm. ndax dañoo dem ba si réew moom mu fekk ko li muy liggéeyal waaye jurówa di ko liggéeyal magam ju tedd ji di ko liggéeyal maamam maam Cheikh Ibrahima Fall di ko liggéeyal sëriñ Fallou Fall ci ci ci lu wér moom sëñ sëñ sëñ sëñ sëñ sëñ sëñ Cheikh Fall Khady fi mu ne nii may waxee yow am na murit yu nekk euh, France Paris ñu ngi koy waajal bis boo xamante ni bisu sargal ko moom delloo ko njukkal la waaw ñu ngi ko jàpp incha allah ni kii le 31 décembre bi ñu dëgmal foofee ca Paris mm. incha allah dinañ si ñëwaat lu yaatu di ko ziar bu baax a baax waaye soxna am yala njaay moom it Baye Fallou soxna maam Seynabou Ndiaye si ndigalu mm. eh, Serigne Cheikh Bintou Fall xam nga mu ngi fay waajal moom it mm. ngontum euh, soxna maam Seynabou Ndiaye ni ki euh, di le 25 décembre waaye loolee yëpp nag xam ngeen ni mooy bisu soxna Rama bii nga xamante ni moom lay def. incha allahu rabbi fii si Masaalikul Jinaan ñu ngi samedi bii ñu dëgmal nag di la 10 décembre. ànd kaak mbokki bàyyi Faal yii nga xamante ni lu mu yëkkate rek ñu ànd kaak moom. wax dëgg yàlla si daayira yu yaatu yëpp dañ si dëkk léegi ni incha allah ak yaa faamaloo euh, moom moom da di da di da di murit da di da di Faal moom moom foo gëstoo si liggéeyal maam Cheikh Ibrahima Fall faaw danga ko gis ñu ngi ñëw si moom léegi nii kon sëñ Modou liggéey boobu soxna Rama ñi mu ko àndal ak programme bi nañ lay demee ndax daa mel ni bu ñu xëyee lay doon ba bu ñu xëyaatee si ëllëg sa. waaw jërëjëf imaam jërëjëf ñu ngi ñëwaat. <laughs> sant imaam nga am solo. Mhm. yu yaatu ba. di képp kuy topp jotaay bi rek jëriñu jëriñu nga ci. Mhm. Euh, liggéey bi nag moom saa su ne saa ñu koy leeral rek dañuy ñëw ci cosaan bi ndax dañ ci am digal. ndax nee nañ am na mag musa taxaw ci kanam maam Seere Faal mm-hmm. daal ni a'uuzu billaahi mm-hmm. ni ko taxul nga mucc ci mm-hmm. mu ne ku ci bëgg mucc nooy def mu ne ko da ngay dem fa mu gentalee nga sanc fa te muy dëggal loolu waaw ndax iblis boo xoolee suñu borom da koo digal mu mu mu ndigal moo tax suñu borom rëkki ko waaye ndigal nag mooy lépp iblis bi da ci am ndigalul sëriñ bi ndax dañoo dañoo dañoo def màggalu maam Serigne Ndiaye deux mille euh, euh, ba noppi ñu ag fa mak seigne Saliou Diop ngir mu yewe ñu ndaysan biñ ko taggo ba nopi mu ñaanal ñu dañi waaw dama dama bëgg bo leen àggee sow ngeen taxawal fa daayira xidmatu maam seigne ndian jare ta yaatal ko biñu delsé delsee ci ak soxna ci mu rafetlu ko lol <laughs> ci déwén sa soxna ci dem ci seigne bi <laughs> waxtaan ci ah, ak mom niko ah seigne Modou ak Saliou kat ñi nga xamanteni ne da leen joxoon diggal ñu ñu taxawal daayira xitmat maam xidmatu seigne ndian fa la ci sow dama bëggoon ànd ak ñoom liggéey bi mm-hmm. sëriñ bi rafetlu ko boole ñoom moom ñu ànd ak moom liggéey bi mm-hmm. ñu xam ne nag li tax liggéey bi gën a mën a ñoŋ gën a mën a yaatu mm-hmm. mooy ñu fexee def am ngontu moo xamante ni suñ ko defee mën cee lancer programme mën cee lancer liggéey bi xam ne liggéey bi kan digg lañ ci am ci xam ne liggéey bi nii lay doxee ci at moomu ci lañ def cant gi njëkk a def waat tey dañ cee am ndigal euh, ci sëriñ bi soxna si laaj ko ci ndigal mu jox ko ci ndigal ni ko fep fep fépp foo bëgg def rek am nga ci sama diggal jaru sa nga ñëw di ma tag am nga ci sama diggal soxna si nek ci wax deug yalla bu baag legi nek ci borom passif lool lool lool sax ñu and ko moom di ko doxalee kon loolu diggal la ta sëñ bi sax bam koy bam koy def dana ma dama nga jënd kay ak bi mhm. dama jënd kay bi mu bind daara xitmatu maam seen mu njaay njëriñ sëy sëñ mu rab la waaw sëñ bi mo tuddu daara mo joxe tuddu daara bi tan seen borom dolli ngërëm daara xitmatu maam seen mu njaay njëriñ ak ay góor waaw daan may jox kay bi ma dejj ko mhm. kon loolu ak cant la mhm. ndax lépp looy liggéeyal yàlla di ci liggéeyal Cheikh Ibra ba ndigal fekk la ci maanaam da nga ciy am xel mu dal ndax ñoom suñu borom daa barkeel seen kàddu ñun doonte su fekkoon dañ dañoo toog sax jëfewuñ ko mhm. dina am ñeneen jëmm yoo xam ne dina ñëw jël liggéey bi yóbbu ko fa mu bëgg ndax ala kulli ak seen wax mhm. maanaam li ñu ci bëgg ala mooy am rek waaw mooy am kon loolu mooy cosaanu bés bi loolooy cosaanu bés bi waaw bés bi nag soxna si da koo ànd ak yaay faal yi ànd koo góor yàlla yi mhm. ak léegi nag mu nekk diir bu toll ci juróom-ñaari at mhm. ñu ànd liggéey bi at bu jot ñu def ngont moo xam xamante dañ koy wàccee dañ koy defee wàccaayu màggalu Sëriñ Njaay bi ñuy def fële ca Touba waaw loolooy sabab bi waaw te lépp luñ ci def rek lépp lu ci ruusee rek day dem jëbal ko sëriñ bi waaw noonu lañ koy noonu lañ ko àndee di ko doxee kon soxna si wax yàlla mu ngi sant bu baax a baax a baax ñi nga xam ne ñoo ànd ak moom liggéey bi mhm. ku ci mel ni délégation bi nga xamante ni ñoom la àndal suñu bokk soxna yi ak góor yàlla yi nga xamante ni ku ci mel ni maam làmp masaalikul jinaan sëñ karaa ndigal sëñ baara seen sëñ atuman mbay sëñ bay sëñ bay faal mooy ñi nga xamante ni ñoo nekk ci ci ci plateau bi. waaw incha allah dinañ leen wane léegi bi. Mhm. ak tamit di siyaar tamit Serigne Mame Cheikh Diakhaté ni. waaw ngi door tàbbi si ci biir. tey kon ñu xam ne bis bi. Mhm. la moom sëñ Mourad rek a ko yitteel. Mm. waaw wallaay loolu mooy kese moo moom ñun ñi nga xamante ni ñoo bokk. Mhm. kenn bokk fa ñuy fa ñuy rootee. ñun xam nañ ko ñaanal nag suñu borom defal ko ay ba dem am ci kër yéene ci kër gi suñu borom motali ko kon Alioune liggéey bi maanaam diggal loolu lañ ci am te noonu lañ ko àndee di ko doxee mu nekk nag daayira boo xamante ni nekkul dañuy cant rek bu ne ñëw cantaat demeewul noonu dafa nekk daayira boo xamante ni weer bu jot dinañ daje Masaalikul Jinaan tudd yàlla jàngal soxna si ay li mu toog fatu ko kees goo xamante ni kees maam Seenum Njaay lay doon muy weer bu jot dinañ jël benn wala ñaar wala ñetteelu dimanche ci weer bi ñoo xam dimanche bu ñu ciy jël daje ko mu nekk loolooy loolooy sababu daayira bi nga xam nekkul ni dañuy ñëw cant bu déwénee ñëw cantaat bis bi nan lay tëddee bis bi ni muy tëddee mooy suñu xëyee dinañ amal njàngum alxuraan moo xamante ni sëriñ maam Gunda Fall mu sëriñ Mour Ablaye Fall Ndar dëgg loolu moom mooy jiite kaamil bi mook sëriñ Mour Ablaye Fall Ndar moom sëñ Aziz moom sëñ Mor Talla ak sëriñ Mour Ablaye Fall moom sëñ Yaasin moom sëñ Basiru moom ñooy jiite kaamil bi suñu xëyee dañuy jàng ay lim ci kaamil alxuraan addiyal ko soxna si boole ko durusu xasida ndax comme ni ko sëñ bi waxee sànq ku tudd maam seenum yaay tudd alxuraan ndax itteem yëpp alxuraan la woon mm-hmm. maam seenum yaay day alxuraan moo tax bis bi ci loolu lañ koy tàmbalee mu am njàngum xasida ak njàngum alxuraan mm-hmm. bu ñu demee nag ba toll ci wàllu tisbaar dinañ génne ba quinze heures ñu génne bernde yi mbokk taalibe yi jëfandiku bu ko defee bu ñu demee ba 17 heures 30 ñu def mise en place bi bu ñu defee mise en place bi nag dina am ay kuréel xasida boo xam ne day yëkkati xasida Sëriñ Tuubaa yi dina am tamit bu xasida yi jàllee tamit dina am kuréel boo xamante ni kuréelu Samfal lay nekk bu ñu demee nag ba 20 heures 30 dinañ am waxtaan wu am solo woo xam ne dañ koy waxtaan ci dunduk soxna si ndax dañoo bëgg képp ku fa ñëw rek mën a jariñ ci soxna si mën a xam soxna si nan na nan la doon dundee bu ko defee suñu mbokk soxna yi mën na roy ci moom ndax ñoom ay royukaay lañ ndax suñu waralaay daa waxoon ni maam séeri bu amul bis day sant di toppe ndeysaan maam séeréer bu mooy sant soxna jaara déggal loolu suñu moom laaj noonu la ko tuddee nee na bis bi noonu la ko tuddee maam séeréer bu jaay mooy sant soxna jaara déggal loolu kon la dañ ko war a dekkil la xool soxna yooyu nañ nan lañ daan liggéeyal yàlla jaare ko ci seen i borom kër hmm. loolu dañ ko war a dellu si delloo si ndax ñu am manqué ñu ay ay ay ay référence dëgg la am nañu ay royuwaay war na de maam Seydou Ndiaye maam su ci soxna yi royee góor yàlla yi roy ci maam Cheikh Fall Baab Nuur diina adduna day jag dëgg la de waaw loolu day jagal adduna boo dee si waxtaanee ci soxna si ba noppi bu nee ba 22 heures 30 dinañ amal cérémonie officielle boo xamante ni dinañ yaatal liggéey bi ba képp koo xamante da cee bëgg a bi dina am buntu yu muy jaar ngir tàbbi ci liggéey bi. am solo waaw ndax liggéey bi dañ koo bëgg a yaatal ba ñëpp jot ci. Mm-hmm. ubbi nañ suñuy bunt dañoo bëgg liggéey bi ñu yaatal ko ba képp koo xamante ne da ngay bàyyi faal. Mm-hmm. di ab jullit di ab taalibe nga ñëw tàbbi si ci ndax kat seeru xaal moom amul euh, ñemewul bor daa am pay. d'accord waaw te li ñu liggéey suñu bopp lañ koy liggéey. Mm-hmm. waaw ndax jëf jël rek la seeru xaal waxoon. waaw ku jëf jël. waaw waaye nag ku ñan ñàkk boo jëndee am. waaw mbirum yoon bi moo fi nekk. waaw bu ko defee bu loolu jàllee cérémonie bi bu jàllee dinañu tamit am na ay tuddukatu yàlla yoo xamante ni ku ci mel ni Serigne Khadim Pen bu Ndar Fall Serigne Mbaye euh, Diagne Zikrula Serigne Moussa Kalamula mhm. ak képp koo xam ne day tudd yàlla rek ñu ngi lay woo ci bis boobu ndax bisub zikkar la bisub alxuraan la bisub xasida la mhm. waaw bisub cant maam jaara Buso jaare ko ci maam Seydou Ndiaye. te loolu moom ñëpp la war. waaw loolu moom ku ku ku ci ku ko ku ko def war na la ku ko deful war na la. Mm-hmm. kon nag euh, bu sëñ Modou Abdoulaye yàlla na suñu borom dolli ngërëmam. amee tawféex euh, ci ndigal. jël euh, bis boobu yaatal ko. Mm-hmm. yabalal ñu doom ju baax ji di soxna dama. Mm-hmm. ni ko demal nga gàttandu waa Ndakaaru. ci waajal bis boobee. kon nag loolu taw tawfeex la kon ku nekk war nga see ñëw def xam ñëw xam ni soxna Rama mi yow la koy defal waaye nag xam ngeen ni ni nga ko waxee bis boobu mu tuddee ko nag euh, kéemaani maam Cheikh Ibrahima Fall laa ko tuddee Baye Cheikh Daw <laughs> moom daal gis nga sëñ Mbaye Diaw man mi sax mënoon naa ko waaye nag euh, damay dama dama dama naan la daal xam naa luy jafalee doon maanaam nga nga nga nga wooteel sëñ Mamour ah. yow fi mu ne nii moom da ngaa toog ngir wooteel sëñ Mamour ndax sëñ Mamour moom maanaam bu fi toogoon lu mu bëgg a wax dana ko xeeb ndax maa moom rek la bëgg wax dëgg yàlla ñun moom rek lañ bëgg kon nag nga wootee ci turu sëñ Mamour ndaw mboolem ñi nga xamante ni ay soppe leen dañ ñëw gunge sëñ Mamour ak mbooleem njabootu Baye Cheikh ndaw gi ci bis bii nga xamante ni soxna Rama Fall moom ñoom ñoom ñoom ñoom la ko tuddee sëñ Baye Diaw waaw imaam de moom tay moom waaye nag yow man a xamoon nag lan laa bëggoon <laughs> da may dee rek ni ma imaam moom na waajal beneen boo xamante ni day ñëw spécial <laughs> waaw nag ma ko dee rek ak bés ba ak mu ñëwaat ci plateau bi mënut a ñàkk waaw waaw <laughs> ci euh, euh, soññe solo bi ak leeral kon bis baa ngi noonu ndeysaan soxna ma ñu ngi leen jaar baax ndeysaan euh, ci li mu wooteel maamam am ci ndigal ndigal sëñ Mourou Ablaye wala yàlla yokki leeram mhm. wax wallaay te baatu ndigal rek mooy lépp mhm. lépp looy def te amoo ci ndigal rek mhm. man man man ngaa wàcc yoon yi waaye loo am ndigal rek sëriñ bi dina ci dimbali te soxna Ram mi day jàmbaar lool ci bis bi tey jii nag mu ko Baye Cheikh Ndaw sëppam ñëpp waaw sëppam sëppam ñëpp sëñ am sëñ am ni ndaw nga xam ne moo toog jërë xalifa Baye Cheikh di ko ñaanal yàgg fi lool ak Baye Baye Assane Ndaw ñoom Baye Moudou ñoom ñëpp ñu ngi waaj gis bi te xam ne tey ki mu ko tuddee muy Baye Cheikh mhm. soppeem ñëpp na ñëpp dégg nañ ko xam nañ ko ci li mu doon liggéeyal maam Cheikh Ibrahima Fall ci li dimbali nit ñi ci li ko Cheikh Ibrahima defal mhm. muy ñi nga xam ne yàlla jamono doon Baye Cheikh Baye seex daa leen dimbali ñu amut ak njaboot yàlla mu ñaan yàlla may leen njaboot ñi nga xam ne yëpp yëpp yëpp mhm. soxna Rama mii nga xam ne ci mbaaxam. duppee ko bis bi. kon sëñ Mamour saa nga ñu ngi déggante. waaw ndeysaan mu xamal ma ne xelam yëpp mi ngi fi. dëgg la mi woo ñëpp. Mhm. ci bis bii nga xam ne mooy bis bii soxna Rama Fall moom sëñ Modou Ablaye duppee Baye Cheikh Ndaw di ko defee fan Masalikul Jinaan samedi bii di ñëw incha allah bu neexee yàlla ca Masalik comme na mu ko doon defee sëñ Modou dégg ngeen li mu ci wax mi ngi woo ñëpp nag képp ku nag képp ku bëgg Serigne tubaa yaakaar Cheikh Ibrahima Fall war ngaa yow ci bis bi ndax li ci sëñ Modou wax rek doy na doy na doy na déplacement pour ñëw fekk si bis bi ndax soxna yi war nañoo am ci njàng mën ci roy ci soxna maam bu Ndiaye ak soxna maam Diarra ñi nga xam ne ñoo soppi ñoo bëgg Cheikh la te di Baye Fall war ñëw ci liggéey bi liggéey bii daal képp ku nekk ab jullit te bëgg lu baax rawet na murit rawet na Baye Fall war nga cee tàbb si ni nga ciy tàbb nag leen sëñ Modou wax na ko ubbi nañ ñëpp bunt yi soxna Rama moom ab Baye Fall Cheikh maam bu Ndiaye la waaw liggéeyal maam bu Ndiaye rek moo ko bàyyi fii mu nekk ñi mu àndal di yaay faal yi góor yàlla ñëpp liggéeyal maam Cheikh Ibrahima Fall rek la fi nekk moom di jàmbaari sëñ Modou Ablaye lool ñu koy ñaanal Fall nga yàgg ànd ak wér wax dëgg yàlla kontaan nañ si bu baax di woo ñëpp nag sëñ euh, sëñ Alioune soxna Rama mi ngi woo ñëpp képp ku jàkkaarloog télé bi rek ñu ngi lay woo ci bis boobu Masaalikul Jinaan. woote boobu nag daa mel ni moom Baye Talla Gueye moom déglu na ko dégg na ko. waaw ah, baax a baax jëme na ko moom Baye Fall la moom moom moom moom nee na tàmbal na addiyaam. waaw waaw ngir tàmbalee ko moom si bis bi. nit Baye Baye Baye Talla Gueye ñu ngi koy ziar bu baax a baax moom wax dëgg yàlla. Mm. moom moom Serigne euh, Moustapha moom Serigne Abdoul Khadr Mbacké mu mm. Cheikhul Khadim. Mm. waaw moom moom moom da di da di da di Baye tigi tigi wax dëgg yàlla. moom daal soxna Rama. da nga xam ne nee na mu ngi ànd ak yow bis bi. mel na ni waa Istanbul aussi Euh, fële ca Turquie ñoom jëwriñ sëñ moor Ndiaye ñu ngi leen di ziar bu baax ñoom Baye Fall yi mm-hmm. nee na ñoom it ñu ngi lay ziar bu baax a baax tey tey tey waaj bés bi bu baax a baax caatu làmp ñu ngi koy ziar moom it ñoom ñëpp ñu ngi bàyyi xel bés bi mm-hmm. xam naa ni daal samedi moom euh, soxna Rama danañ ko wuy si ak ay invité d'honneur am mm-hmm. ndax bis bi nag daf si am ay invité d'honneur euh, di soxna Maam Fall soxna si ñoom la jël comme invité d'honneur soxna Maam Fall soxna Ndey Faatu Bitey soxna Awa fay ñii ñooy invité d'honneur yi si bis boobee nga xamante ni mooy ngontal maam bu Ndiaye bi ñuy def ñu ko samedi ca Masaalikul Jinaan waaye di si euh, rendre hommage mm-hmm. di si rendre hommage Baye Ousmane Pouy soxna Koura Seck ak soxna Koura euh, Fall moom Serigne Modou Abdoulaye Fall Ndar mm-hmm. kon soxna si ñoom la si rendre hommage comme bis boobu nañ ko bàyyi xel bu baax a baax sëñ Baye dama jëloon kàddu gi si yow. kat nga ne noonu ko waxee rek. waaw mhm. kon daal képp ku nekk ab jullit. Mhm. nekk ab taalibe. Mhm. ñun mën ngaa ñëw tàbbi si liggéey bi. liggéey bi nag liggéeyal Cheikh Ibra Fall. mënoon a Cheikh Ibra nga yaakaar ñuy defal maam Seynabou Ndiaye bis fii ci biir Dakar. ci fi nga xam ne fi la sëñ Tuubaa am place muy masal ko jinaan nga nekk Dakar naan damay kii. na ci Baye Fall yeeg murit yëpp ñëw. te ku ci ne tàbbal sa addiya jaayante koog maam Seynabou Ndiaye lu baax nag boo koy def nit di la xool boo liggéey bu ñu koy fay ba nga koy def yaa ngi ko jàkkaarloo moom. te lii liggéeyal maam Cheikh Ibrahima Fall la. mënoon naa woote bisu boppam comme ni koy ñëpp defee. doo fi invité maam Seynabou Ndiaye la wooteel di ko sant la Cheikh na jaar bisu. kon na ci na ci ñëpp ñëw ñu ngi ciy woo comme ni ko sëñ Modou waxee. buñ xëyee dinañ jàngal xuraan yendu def bernde. bu ngoonee mise en place tuddkat yàlla yi ñëw. oustaz ngi kii imaam a ngi nii. imaam day eh, day dégg li waxtaan man damay noo suñu doon li ndax man bëgguma woon wax. man kan man damay hésité oh, <laughs> ni ko li des ba bés ba. wala mu laalaat si tuuti rek. ndax wax dëgg yàlla moom. ndax suñu yaay soxna Faama noonu nii. mu ngoog am na war na cee jël palo ak ñeneen ñi. mu ngoog jërëjëf xam naa ñu njëkkante waxtu rek. incha allah Albert jërëjëf. soxna eh, soxna Ramayit mu ngi ziar bu baax a baax ak sant eh, ak woo Serigne Fallou Fall Serigne Galas moom Serigne Amdi Yacine Fall Euh, di ko ziar bu baax a baax di ziaraale bu baax sëñ Modou Fall moom sëriñ Amdi Yacine Fall mi nga xamante ne mooy njiitalu daayira Jazbul Murid waaye sëñ soxna siit mu ngi ziar bu baax a baax ak sant ak a woo sëriñ euh, Bada Fall mm, Taale Yacine waaw nu ngi koy ziar bu baax a baax moom it mboolem njabootu maam Cheikh Ibrahima Fall gi bàyyiwul kenn te gis na niñ koy taxawoo gis na saa su wootee ñu koy wuysee kon mu ngi leen di gën a sant te di gën a ñaan euh, di leen gën a ñaanloo tamit si bis bii nga xamante ni mu ngi koy liggéeyal maamam ju tedd ja maam Cheikh Diakhaté ndeysaan mu ngi may fàttali lu am solo xam ngeen ni maam Cheikh Ibrahima Fall imam maam Cheikh Ibrahima Fall def na woon sëñ Ba sëñ euh, li may ñaan mooy fu sa càng gi àgg na fa sama njaam li àgg ndax dégg lool loolu ba pare li gën a yéeme sëñ maam Cheikh mu ngi may fàttali ni Euh, màggalu Poroxaan. Serigne Moustapha Bassirou. moo ko woote. màggaluk maam Seynabou Ndiaye. Serigne Moustapha Fall Djili di Serigne Modou Ablaye mii moo ko woote ñaari Moustapha yooyu nga xamante ne bokk nañ eh, dañoo ràññeeku lool kii si setu Serigne Touba kii di setu maam Cheikh Ibrahima ràññeeku lool wax dëgg yàlla day dëggal li nga doon wax sànq naan mbiri Serigne Touba ak Cheikh Ibra seen i mbir daf di ñaar di lenn. waaye nag lu ñuy doon doon waaw bismillah. <laughs> sëñ maam Cheikh jërëjëf. gis nga man ñi ma xam sax. ndeysaan tenue bi may solo. ñi ko xamul ñu bari. ñu ne man ki may diw ki may diw man mooy sëñ saaba Bassirou. cey déggal loolu. say wër sëñ Tuubaa ak Seex dama sëñ Moustapha Bassirou. moo tax wa man kasiran naf yàlla wa des moom. déggal loolu. gis nga daal di soxna jaar kan moo mën a defal lu mel nii ci àdduna. Hmm? te loolu liggéeyam la. tey te sëñ Alioune Badara naa la wax. ku fa dem xam ne. waaw déedéet dinaa la wax a yéeme. daaway mm-hmm. internat yi nga gis. waaw sëñ Moussa Bassirou ko tàmbali. ku ko def ku ne si moom nga ko royee. waaw yi nga gis. allahu akbar. moo ko njëkk a jox ko seexam bi sëñ Modou Gueye. waaw Cheikh Modou Gueye ñu ngi koy ziar bu baax a baax wax dëgg yàlla mu sëñ Moussa Bassirou. moo tax mu sëñ <laughs> Moussa Bassirou. Cheikh Ibrahima sunu yaay njéeme Thioune mu ngi koy ziar bu baax ndax bëri na njàngalem Cheikh Ibrahima yu bàyyi Cheikh Ibrahima sëñ Basiru la ko wax. bëri na noomu jëflanteeg sëñ Tuubaa lu bay. Mm-hmm. sëñ Basiru la ko wax. te sëñ Basiru daa mënoon a bind lool. dëgg la de. sëñ Basiru daa mënoon a jàng lool. mi ne dul baaxil xaddim mooy delluwaay bu mag ba de. ndax sëñ mooy benn jëmm boo xam ne. Mm-hmm. suñu boppam da ko defal tawféex. tawféex gi ñu ko defal mooy Cheikh Ibrahima sëñ tubaab bi muy dem ci géej gi. Mm-hmm. gannaawam la joxe ndigal. ne soxna Mati Maam mi bu amee gan. su dee góor la na ngeen ko duppee Mouhamadul Bachir. dëgg la Cheikh Ibrahima Fall dégg ko. Mhm. am gan ci diggante bi. duppee ko sëñ Basiru te ñëwagul jamono. <laughs> dëggal loolu. maanaam sëñ Basiru Fall mu seexe ba. seexe sëñ Basiru Mbàkke turandoom te ñëwagul woon. loolu kenn mësu ko dégg. maa la wax lii de tey. googu mu am nag moo tax soxna si moom foog mu mel nii. maa wax lii de foog mu mel nii. Mhm. dégg nga ko soxna Asu mi nga xam ne moom lañ joxoon moom la seexe ba joxoon sëñ Basiru. Mhm. mi nga xam ne moom meññ sëñ Cheikh Assou Fall ak soxna Khady Fall soxna Khady Fall moom moo yaa soxna si ah xalaas ah kon mënta eh, ñàkk bañ nii maa la wax lii moo tax boo dugalee sëñ Bassirou ci biir wax ji rek cay bokk ndeysaan tey tey moom moo tax muy doxee noonu maa la wax lii soxna si di ziyaaraale bu baax jëf imam mhm. soxna si di ziyaar bu baax a baax mhm. Serigne Abdoul Aziz Fall mhm. moom Serigne Abdourahmane Fall ci laa la Euh, moom hmm. di jàmbaar loolu wax dëgg yàlla soxna si kon mu ngi koy woo si bis bi di si woo euh, monsieur le maire Pala Samb hmm. Pala Samb maanaam moom kenn dootu ko présenté hmm. nee na man népp lu ma mel maam Cheikh Ibrahima Fall la mu ne mairie pa Fann Amitié point ëb e yi ma yor maam Cheikh Ibrahima Fall moo ko teg sama loxo daaw mu ñëw si bis bi taxawaay bu am solo wax dëgg yàlla soxna si mu ngi ko si woowaat bu baax a baax euh, Serigne Salif Fall Ndigal ñu ngi koy ziar bu baax a baax soxna si mu ngi ko si woo Serigne Cheikh Ndigal Fall sunu sang sang soxna Adama mii ndeysaan <laughs> nu ngi ko si woo bu baax a baax wax dëgg yàlla mm. sëriñ Abdoul Ahad Fall soxna si mu ko ci woo ak mboolem xam naa li ñuy def mooy njëkkanteek waxtu yi ñëw si suñu mm-hmm. yaay faamaloo mm-hmm. ndax am na ci lool dana ko mottali incha allah si kàddu yi nga xamante ne moom moo yor kaddu soxna si sax soxna Rama mm-hmm. saan léegi dañuy jox suñu yaay soxna faamaloo mm-hmm. mu mu jottalee kaddu uh, soxna Rama yi mm-hmm. ñoom nag seen taxawaay si yotu soxna si tubaarkàlla macha allah te sëriñ bi rek tax nag wax dëgg yàlla ñoom ñoom ñoom soxna yëpp rek wax dëgg yàlla di leen siyaar bu baax a baax soxna faama bisimilah kaddu gaa ngoog jërëjëf Cheikh na Ahmadou Khadim jërëjëf Cheikh na Ahmadou Khadim jërëjëf Cheikh na Ahmadou Khadim jaarama maam Cheikh Rami Fall jaarama maam Cheikh Rami Fall jaarama maam Cheikh Rami Fall jërëjëfati soxna Seynabou Ndiaye jërëjëfati maam Seynabou Ndiaye jërëjëfati maam Seynabou Ndiaye jërë waaye jërëjëfe soxna Rama Fall jërëjëfati soxna Rama ndax mbir mi kat yaa ñu ci boole. Mm. mënoon na noo dooni Baay Faal rek fàtte bisub maam Seynabou Ndiaye waaye yaa takk laxasaay ànd ak waa Ndakaar ñëw ni bisub maam Seynabou Ndiaye de fii laa koy waajale mm. ba bu bis ba jotee tuuba ñëpp waa Ndakaaru mën a jug dugg ci kaar fekk si leen Touba. Mm-hmm. kon jërëjëfati kon ñu tàmbali sunu nuyoo ak sunu ziar rek di ko jox sunu yaakaar. sul xalifa cheikh mouhamadul muntaxa mbàkke xaadimu rasul di ko ñaanal mu yàgg fi loolu noonu lañ ko ñaanale sëñ am di moodu mbend fall di siyaar bu baax sëñ murtala fall hmm. mu sëñ ablaye fall ndar hmm. di siyaar sunu xalifa sëñ cheikh bintu fall mu sëñ moodu ablaye fall ndar di nuyu bu baax alaaji mbàkk yu fay sunu jëwriñ hmm. di nuyu bu baax imam sëñ basiru Mm-hmm. Masaalikul Jinaan mm-hmm. di siyaar sama sëriñ nag Alaaji Papa Cordelo mm-hmm. di siyaar sañ Alioune Thioune borom rajo bi ak télévision bi di siyaar sañ Alioune sëñ Modou Maam ah. ak Baye Ibra Thioune mi ñu daan àndal ci émission yi ah di profité di wax ci délégation bi nga xam ne soxna Rama ànd na ko moom ki ci njëkk di soxna Codou Faye nekk fii ci université de Dakar soxna Ami Saliou Dioum eh, di taalibeem soxna làmp Ndigal Fall mii toog. Mhm. soxna Raak Ñang mi soxna Aada Baye Fall moom sëñ borom Ndigal Fall. Mhm. ñu ngi koy siyaar bu baax ci sikar si tabaarkàlla ak soxna Ndey Ndaw Baye Fall bi nga xam ni yi bi mu tàmbaleeg léegi moog soxna si la lépp bi ngi koy def. Mhm. lu soxna si bëgg rek boobaak léegi toogul xaaruma sax moom day dem rek jërëjëf Fall Ndiaga. di siyaar ñi ñu bokkal plateau bi rek ko la ci imam Cheikh Niang ñu ngi lay siyaar bu baax di siyaar sëñ Modou Diop di siyaar mbay Mbaye Baye Fall mën nañoo continuer def appel bi ñuy def pour woo soxna yi nga xam ni euh, soxna Rama woo na leen ci bis bi ki ci njëkk di so soxna Seynabou Fall moom sëñ Abdourahim Fall ñu ngi koy woo. di woo soxna Mousli Fall së Sërif Assane Fall. soxna sëñ Assane Fall. soxna Khady Fall moom sëñ Modou Menda Fall. soxna Suwaado Fall ca Parcelles Assainies soxna Fat Fall eh, yàllay bawal. soxna Fat Fall yàllay bawal. bintu Mam Saliou Fall. Hmm. soxna Nogoy Fall bintu sëñ Abdou moom sëñ Mortalla ziar bu baax sëñ euh, soxna Mora Fall bintu sëriñ Talla Yacine Fall moom sëñ Basirou Fall moom maam Chérayim Fall di woo soxna maam Jaara Mbàkke moom sëñ Muntaxa Mbàkke di woo ajaratu maam Isa Mbàkke axlu kafe di woo soxna Ndey Mbàkke moom soxna bintu Madina di woo soxna Marème soxna maam Marème Mbàkke bintu bintu sëñ Abdou Lahad di woo soxna maam xari Mbacke moom sëñ Mourtala mm-hmm. di woo nag ajaratu gàmmu Diop di jëwriñu mm-hmm. Masaalikul Jinaan mm-hmm. ak fédération euh, daayira Masaalikul Jinaan yépp ñu leen di woo di woo ajaratu Kine Seck ca Grand Dakar ajaratu Mbaye ak Ñang bëgg Bàmba di woo soxna Marème Diagne ca bopp soxna Koddu Dieng euh, moom moom moom Cheikh Ibrahima Dieng Baye Fall. Eh, di woo soxna Bintu Dieng soxna Bintu Dieng soxna Bintu Dieng Bintu maam Babacar Dieng ca Louga. Mhm. ak famille bépp rek ñu ngi leen di woo. soxna Awa Thioub moom Cheikh Ibrahima Dieng waaw mooy mbokk daara soxna Ndey Ndey Kodd soxna Ndey Gay ak ak famille yëpp ñu leen di woo. sëñ soxna Ndeye Guèye mu sëñ Alassane hmm? soxna Ndeye Penda Jong sa Ngelaw marché HLM soxna Fat Jong daayira maam Seynabou Ndiaye soxna Ndeye Lamp soxna ndey Ndeye Lamp may ci Cité Port hmm. ak famille bi yëpp ñu ngi woo ñëpp yaakaar naa ni hmm. loolu lañ bindoon kon ñu ngi siyaar ñëpp di wax ni bis bi dafa nekk bis bu am importance ndax ku xool maam Cheikh Ibra mii baa nga xool ci sëñ bu mag bi di nga laaj ñii ñan ñoo leen wàcc jamono war nañoo gëstu ñan ñoo wàcc jëmm yi jamono nañu lan la ñu nekkee woon ci jamono nun daan liggéeyee ñu nekk nu ñu nekkee woon ak seen mbokk daara yi nu ñu nekkee woon ak seen sëriñ bi nun doon yore seen njaboot mhm. kon kuy jigéen ku ne ñu ngi lay woo ci bisum maam Seynabou Ndiaye bi soo fi ñëwee ah imaam de am na lu mu doon wax di nga xam ñii nan nan nekke woon ci seeni kër mhm. maa ngi sant ñépp di gërëm ñëpp jërëjëf jërëjëf soxna Rama na nga fi yàgg ci wér jërëjëf jërëjëf yaa faama sunu yaay yu baax yee nga àndal yëpp ñu ngi leen di ñu ngi leen di ziar bu baax a baax rek ni nga ko waxee ni nga leen tuddee hmm. waaye nag waaye nag ma beral ma beral ma beral ziar bu baax soxna Rama waaw day doo da ngay dolli tudd nañ yëpp macha allah euh, soxna si soxna si mu ngi fàttali it soxna Rama di fàttali seexu ndi euh, Serigne Ousseynou ak Serigne Assane di seexu Serigne Modou Abdoulaye Fall Ndar yi mm-hmm. mu ngi leen di fàttali bu baax a baax ci ci ci di di leen woo si bis bi waaye di di di di beral nag ziar bu baax a baax yaay Fall yi ngàndal soxna làmp mii soxna làmp ndigal nu ngi koy ziar bu baax wax dëgg yàlla mm-hmm. ñoom foo leen gis si maam Cheikh Ibrahima Fall rek la ñuy dox. waaw taalibi Serigne Cheikh ndigal bu mag bi. moo hmm. mboolem yaay Fall yi ñuy àndal saa su ne. Hmm. Euh, soxna euh, Ndey Ndaw mii nga xamante ni moom. man hmm. Baye Fallou soxna Rama laa ko tuddee. nu <laughs> ngi koy ziar bu baax a baax wax dëgg yàlla sunu yaay yi ñu ngi leen di ziar ñoom ñëpp rek wax dëgg yàlla teewaay bi am na solo. te bés ba nii lañu fas yéene. Euh, waaw sunu yaay soxna Codé fay ñu ngi koy ziar ñu ngi koy ñu ngi koy ziar bu baax. wax dëgg yàlla moom it euh, ni ñu ko wanee sànq si écran bi. Hmm. ñoom ñëpp fas yenee dar euh, bés ba. Hmm. kon euh, soxna Rama mii ànd ak moom. santale ko wala waajalal ko cantuk maam Seydou Ndiaye si soxna jaaratullahi Mariama Bousso ni ñu ko waxee woon sànq. Hmm. di bu baax waa Istanbul. ni ñu ko waxee sànq waa Touba Istanbul mm-hmm. di murid yooyu ñoom euh, jëwriñ moor Ndiaye ak mboolem Baye faal yi foofu mm-hmm. ñoom Baye Fall Ousseynou Diop fàttewuñu leen ñoom ñëpp rek wax dëgg yàlla du duñu naree lim moom ndax ñooñu moom ay Baye Fall lañ euh, euh, ni kii daaw ñoo ànd ak ñoom ndeysaan seen si cant maam Cheikh Ibrahima Fall bi ñuy def foofee ca Istanbul 31 décembre ñu ngi koy waajaat bu baax a baax ñoom mboolem Baye Fall yi ànd ak Euh, daayira murit bi foofu ñoom euh, euh, jëwriñ Ansu ndeysaan ñoom jëwriñ jëwriñ jëwriñ mu baax ma ndeysaan ñoom ñoom ñëpp rek wax dëgg yàlla di leen ziar bu baax a baax a baax Baye Amdi jëwriñ Baye Amdi ñu ngi koy ziar bu baax wax dëgg yàlla te ñoom li gën a yéeme mooy. Mhm. seen bis yooyu bu ñu koy def ñoom ak daayira tijaan yi suñu mbokk tijaan yi ñooy ànd. Mhm. ñoom ñëpp liggéey maanaam organiser cant yi noo xamante ni. maanaam mbokki murid yi sax daanaka duñu laal dara. lépp mbokki tijaan yi ñoo koy def. ba si li ñuy service si biir si cantug maam Cheikh Ibrahima Fall boobu. foofu si Touba Touba Istanbul ñu ngi leen di ziar bu baax ca di leen ndokkel. Mhm. Eh, ba ñu fa jógee ndeysaan si cant yi maag sëñ Mamour dañoo dem sax si daayira tijaan ba. ñu dalal ñu dalalin bu rafet boo xamante ni loolay ànd wax deug yalla ndax yéen jangale innamal mu'minuna ikhwa faslihu bayna axawaykum wa waatasimu bi xablillahi jamian la tafarraqu loolee nga xamanteni sunu borom mo ñuko diggal ñom wa Istanbul mom. ñu ngi ci bu baax baax loolu mom ñu ngi lañ koy séré tay jégalu bu baax imam kaddu yi kon dal soxna Rama xam naa nga jox rendez-vous ñep rek niko soxna lo wala kon ñaari kaddu yu soxna Ndey Ndaw di tejj bu ko defee imaam ñaanal ñu. ñu yëkkati jotaay bi nag jotaay bu dul dog. joxe rendez-vous incha allah. Mm-hmm. ni ki euh, samedi. Mm-hmm. ca bisuk euh, cant yee nga xamante ni. Mm-hmm. Euh, mu ngi amee ca Masaalikul Jinaan di bisub soxna maam Seyna bu Njaay xam naa ni soxna si bu noppee rek. kon sëñ Modou jaatale kàddu bu ko defee imaam ñaanal. jërëjëf. sëñ Aline Badara. ñu ngi sant yàlla. di gërëm. ku tedd ki alayhi salaatu wasalaam di ñaanal suñu xalifatu am sëñ Muntaxa mm. yal na fi yàgg te wër mm. sëñ Amdi mu sëñ Moodu Mbenda Faal mm. yal na ko fi yàlla yàggal moom itam te ñu ngi ñaanal ñëpp nag di ñaanal suñ sang bi Faal muy soxna Rama Faal fàggoog xalifatu amam bi nga xamante ne mooy sëñ Seex Bintu Faal mu sëñ Moodu Ablaay lii nga xamante ne mooy bés bii nga xam ne ndigal la jëwee si suñu waajur yi sëñ Moodu Ablaay yal na ko yàlla may leeram àjjanay firdawsi di wax rek ne ñun ñu ngi woo képp koo xamante ne mooy yaay faal fii si diwaanu ndakaaru ak képp koo xamante ne góor yàlla nga di kàllamatu laa ilaha illallah fii si diwaanu ndakaaru ba si maam bu Ndiaye ba sa Cheikh la comme que Ibrahima Fall nag ba wuñu kenn le diis boobu képp koo xamante ne da wax nga ashhadu an laa ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah yaakaar nañ la nga ñëw si bés boobu dama am Seynabou Ndiaye ka dafa nekk jigéen ju sell boo xamante ne delloo njukkaliti jigéen ju sell muy soxna tulaay jaaratulaay Mariama so de mu nekk jigéen ñoo xamante ne tey ñoom rek lañ jagleel bés ndax seen i jëf ak seeni liggéey kon nag ñun ñii di ay soxna war nañ képp koo xamante ne nag soxla nga te takk laxasaay yaakaar Cheikh Ibrahima Fall bés boobu nga nekk diwaan Ndakaaru war ngaa yeewoo si Masaalikul Jinaan wóoru yàlla yi nga xamante ne nag ñu ngi bàkk kalamatu laa ilaaha illallah muhammadu rasulullah war ngaa yeewoo si diwaanu Masaalikul Jinaan woo nañ ñëpp bawuñu kenn asalaamaaleykum wa rahmatulah. waaleykum salaam allah soxna. soxna nday Ndeye Ndaw. dégg mhm. nañ loolu wax dëgg yàlla si kàddu yi eh, sëñ Modou comme kàddu yi mujj yi ngay jàllale rek bu ko defee ñu jox imaam mu ñaanal ñu. sëñ Mbaye moom maag moom ñoo bokk kàddu mooy rek woo woote wooteel sëñ Mamour. sëñ Mamour mbooleem soppee rek ndax Baye Cheikh Ndaw nag lañ ko tuddee lu am solo. <laughs> soxna Ami Sall bi jiite bi nekk Kër Massar alaaji Paate te soxna Ami Ngir jiite bi nga xamante ne soxna euh, soxna Anta Seck soxna Mame Fatou Diagne ak soxna Ndeye Ndaw ak soxna tamit daara bi nga xamante ni ñoo nekk euh, bopp ci bopp te sëñ Badara Fall ak soxna Mariam euh, si nag mu ngi woo njabootu boppam bi rawatina ñu ngi bokkoon suñu moroom lay bu tuddee suñu Cheikh Bintou Fall rek Abdou Lahad Fall yu bàyyi leen njaboot yëpp ñu ngi ciy woo tamit euh, Serigne Mbaye mu mi nga xamante ni di ci woote Cheikh Ibrahima Dieng ak Baye Serigne Diouf soti baax nga xamante ni mooy jëwriñu suñu moroom laay fii ci Ndakaaru mhm. soxna si ñu ngi ciy woo ñun ñëpp mhm. di woom képp ko xamante ni maanaam ab taalibe nga rek te te te am murit si mu ngi woo ci bis bi Baye yi ñu àndal ñu ngi leen di siyaaxum ñoom ñëpp rek Baye Fall yi nga xam ne ñoom ñu àndal xam naa liggéey bi tamit dañuy jàllale ñett numéro yoo xamante ni képp koo xamante ni bëgg ngaa jokk ci liggéey bi mhm. muy mhm. mhm. boo jokkee ci 77 196 20 43 77 712 97 10 77 416 88 98 boo jokkee ci numéro yi rek bu soobee suñu borom dinañ la wax liggéey bi naka lay doxee incha allah jërëjëf jërëjëf doo ngi santaat bu baax a baax kon mbokk yëpp rek mooy mbokk yi teew yëpp rek euh, aussi euh, sëñ Ousseynou euh, ak sëñ ca HLM di seexu ni ñu ko waxee woon sànq si sëñ Modou yi ñu ngi leen di ziar bu baax a baax soxna si mu ngi leen di ziar te di leen jaajëfal di leen ndokkeel mboolem Baye Fall yi nga xamante ni rek ñu ngi ànd ak liggéey bi soxna si te teew nii si plateau bi ni ngi leen gisee sànq si antenne bi di leen santaat bu baax a baax kon imam xam naa ni dañuy ñaanal euh, mbokk yi rek bu ko defee ñu jox ñëpp rendez-vous incha allah samedi 10 décembre fukki fan si weexub décembre incha allahu rabbi 9 heures le programme bi di tàmbali ba incha allah keroog programme bi di jeex bu cérémonie bi jeexee jàngkat yi tudd nañ fi sànq sunu sunu sunu xarit sunu sunu mbokkum Baye Fall Baye Moussa Kalaamu la ndeysaan ak ñoom sëñ Mbaye ak sëñ Moudaay da ñoom ñëpp rek incha allah danañ fa teew ak mboolem koy tudd yàlla sëñ Taala Ñang sëñ Taala Ñang Baye Taala Ñang ñu ngi koy ziar bu baax wax dëgg yàlla waaw ndeysaan ndeysaan waaw sëñ Mbaye waaw waaw tudd bi santuk sëñ Mamour gi waaw sëñ Mamour mooy li ñu wax si ndorteel li rek ñaan suñu borom barkeel ko loolu wax dëgg yàlla barke maam Cheikh Rafal looloo tax sax teewul ci lii waaye nag bu noppee incha allah Euh, dana def délégation bu yaatu ñun ñëpp ñu ànd ak moom rek ñëw teewal foofu ak njabootu Baye Cheikh Ndaw gépp nga xamante ne ñoom lañ ci rendre hommage jaajëfal leen baax mbokk yi ñu doon jàppale si émission bi ñëpp nag fàttewuñ kenn wax dëgg yàlla euh, euh, Yankoba Daabo ak kon Madieng si ñoo nekkoon si caméra yi jaajëfal bu baax Pape Ousmane Diop ci wàllub son bi jaajëfal bu baax si réalisation bi Serigne Mohamed Thiam di leen jox daje incha allah beneenuk beneenuk talaata ci seen émission Jazboul Mouride sant bu baax a baax soxna si ca ñaan sunu borom mu àggale ak jàmm wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin amin ya amin amin amin